loolee nag euh, procureur xamle ne ko euh, ni fii ak euh, ñaari ay bis des na ko déglu ci lu jëm ci mbirum ONAS meek coow li ci Cheikh Tidiane Dièye lànk ni booba ba léegi du ci wax te Cheikh jang mi yekkoon directeur bi nag jiiñoon ko lu doy waar ay marché ni da ko ne woon nag na ko kase jox ko ñeneen moom Thierno Alassane Sall ni bëgg dëgg ni fang moom moo ko ci dugal ñu déglu ko ca assemblée nationale la ko Kumba Sanjaan Fay tatafo dañu yóbbu plant bi ëpp na une semaine léegi ay bés ci procureur bi mu ne ñu nañu nekk fii leeg fukki fan ak juróom dinañu tontu dañ jàpp nag ni li xew te mu di loo xam ne ñi ko séq muy ay kilifa jàpp nañu lu ñuy wax ni du waxantu mu dem ba ñu dàq ñu ñu dàq ci kenn ci liggéeyam ci postam ci ngeen jégal ma ci kàddu bi ñu wàññi ci kenn ci liggéeyam muy Cheikh Tidiane Dieng mbirum oto bi ak yeneen mbir yi war na tax procureur ci boppam ñu ndax dañu ñoom ñoo woote jub jubal jubante ndax la fi jubadi woon am na ay fi dudul woon jaar yoon ñu nit ñu dund ko ci affaire assainissement bi parce que inondation yeeg fosse yi ball yi ci mbeddu dakaar ak jafe-jafe yi ñuy dund yëpp dañ ko dund ñun xamoon nañu ni am na ay mafia bu fa newoon ñun waa république des valeurs. waaye ba léegi ci njox lañ toll. déet ñun waa république des valeurs dañ ci def ay taxaw gëstu dem fuye ci ARMP maanaam ki doon atte mbirum marché public yi mu am yum ci wax ci ñaar ñu ñu bëgg a dugal tey fii DG bi fi woon ci tàngu Macky te amoon lu bëri lañ ko doon reproché mbir mi demoon ba Cour suprême DG boobu bañ entreprise yooyu noonu moom mu doon favoriser ñooñu tey la ñu newaat nañ leen delloo mbir mi alors que njort nañu ñooñu war nañu am responsabilité yu ñu doon dund ci jamono yooyu waaw loolu jarul lu ñu war a jubanti newu fa loolu la ñu wax waaye dafa mel ni olof nee na joyanti ak jubanti dafa wute joyanti mooy jubanti demale si sa bopp jubanti nag mooy jubanti mu jaar yoon même bu la arrangé wu procureur moom dafa mel ni euh, gouvernement bi moo koy wax na agir te loolu jéggu fi loolu la ñu bëgg a a baaxoo